mbirum euh, ñaari nit ñi nga xamante ne mooy euh, Abdou Aziz euh, Ba Dabala ak Wali ñu faat leen fale ca Technopole ca Pikine am na loo xam ne nag jot nañ ko ci jot lu bees mooy waaju njabooti ñi nga xam ñoom la ñu faat déglu nañ leen foofu ca dikk ñibbi nañu waaye boo ma tuddee ñu dellusiwaat ca dikk ñu mën ci yokk ne nag ci ñi nga xam ne tey nañ leen am na koo xam ne fu mu dëkk ak kër waajur bu jigéen bu Abdou Aziz Ba Dabala soriwul dara foofu ca gannaaw raay Salamata Ousmane Diallo enquête bi fi mu toll nii daal di nay tax ñu daal di teg loxo lu mu néew néew juróomi doomu aadama ak kenn ci ki ñi nga xam ni jàppagum nañu ko mu ngi dëkk kër bi jàkkaarloo ak kër yaay ñoom Aziz Dabala naka noone sax ci nga xam ni moo di way jur bu jigéen bu Aziz Dabala ba mu gisee kookee ca dikk ñu koy daal di dugal dafa tiit ba waaw kii du diw tey ci dibeer gi lañ leen doon déglu ñoom njabootuk Aziz Dabala ak bu waali ñu daal di tontu ci laaju ñi nga xam ni ñoo di enquêteurs yi audition bi daal di toll ci ñetti waxtu bu ñu sukkandikoo ci suñuy source ci côté kii di Aziz Dabala nag way juróom bu jigéen raq wala magam bu jigéen ak mag wala raqam bu góor ñoom la ñu doon déglu eh, ci côté kii di Waali nag magam bu góor bi nga xam ni moo ko yar damu amee juróomi at ba nëga ni kookee lañ doon déglu ñaari njaboot gi nag mën nañu delluwaat ci division des investigations criminelles ci altine ji bu ñu sukkandikoo ba tey ci suñuy source keneen koo xamante ni si njort nañ ni dafa daal di laale ci mbir mi enquêteurs yi ñu ngi koy daal di teg gët te boo mayul fileeg ay waxtu yu ñu daal di dëgmal moom it dañ ko daal di teg loxo Salamata Ousmane Diallo Pikine rajo Futurs Médias. Salamata Ousmane Diallo ñoxo Baye Diouf nag moom délégué de quartier la ca cité technopole foofu nga xamante ni foofu la ñaawteef bi amoon moom nag nee na mënul comprendre mukk ñi nga xam ñoom ñoo dëkk ca cité boobu nga xamante moom la moom moo ko jiite du dem ci moom di présenté wu donte sax moom ubbi na benn registre boo xam ne euh, ku euh, ñëw foofu bees war nga mën a dem ci moom pour mu xam ñoxo bàyyi juuf yokk ci ñaawlu ne nag li mu li gën a doy waar rek mooy ku nekk sa bopp la foofu lii nag moo ko jaaxal ndax mën na yokk ñàkkum kaaraange foofu ca foofu cité technopole ñoxo bàyyi juuf lii la wax Salamata Ousmane Diallo. kii bi ci cause bi nga wax ci koñ bi am na fi mais nag c'est un cas te le mal du quartier moo di ne ku si nekk dafa téye boppam kooku mbaax ma sàmba fii la dëkk mais il est de foofa nit ñi nii la ñu def brassage bi dafa am contrairement à fii nga xam ne ils se disent intellectuels ku ne tëju naa di sa këram jeex man dama fi doon benn registre képp koo xam ne ñoom nga si quartier bi locataire ou bien bailleur nga ñëw fii présenté wu sérieux donc instant bi donc bu ñu la déggee wax ji wax yëpp li ko tënk li ko résumé mooy yow da ngay solliciter à ce que ñi nga xam ne ñuy dëkk si si koñ bi ñuy ñëw di présenté wu ci yow mais oui dama ubbi benn registre mais boo gisee kenn tey danga toogaat ba déwén doo gis ku ñu ko ay waaye léegi baal ma di man bëggoon naa fi ñëw waaye xam nga rek jot kekk yooyu bëgg a xëy liggéey samati ñaar mais ku si am soxla loola liggéey beeg këfin bi dañuy ñëw te dañu war a ñëw présenté wu ma jël seen numéro téléphone seen tur seen sant seen numéro kër gi nga dëkk mais un quartier qui fait six cent maisons mënu ma xam ñëpp non c'est pas possible il faut que les gens se présentent loolu nag mooy problème kooku di Niokhobaye Diouf euh, di euh, chef de quartier foofu ca cité technopole waa CUDIS cadre unitaire bu islam mbir mi nag daf leen jaaxal faat yi ñu faat euh, askan wi fii ci Sénégal moom nag kii di secretaire général ba defa gis ne nag yàq société bu yàqu rek ak ñàkkum éducation de base bi nga xamante nag dafa waroon a am loolu yëpp bokk na ci li nga xamante moo tax askan wi daal di def lu leen neex jamono ji def leen jaaxal nag secretaire général bu CUDIS di docteur Cheikh Gueye ak Idi Sow rey ni mu baree ak reyuñ wi ni mu ñaawee loolu yaakaar naa ni li nga xamee ni moom lay wone rek mooy Euh, crise bi nga xamee ni suñu réew toll na ci ci mbiru comportement jamono ji ñoom ñoo dëkkee réew mi euh, ku ne gis ne euh, violence yomb na fi ku ne gis ne tamit agression yomb na fi ku ne gis ne rey nit ak naan ci ndox mi la ñu yemale loolu nag soo gisee ci société ñëpp dañu war a dellu taxawaat saytuwaat bu baax éducation bi nga xamee ni moom la ñuy jox nit ñi saytuwaat bu baax média yi di nga xamee ni moom la ñuy génne ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ci théâtre yeeg cinéma bi li euh, euh, nga xamee ni jëm na ci euh, mbiru famille rôle bi nga xamee ni moom la daan joué ci protection waaye aussi nekk luy transmettre ay valeur lool it dafa deñ moo tax lu ñaaw lu nekk ñi ngi koy gis ci réew mi moo tax ma jàpp ne changement bi war a am changement sociétal wara la war a doon moom la ñu gën a soxla ci yeneen changement yëpp li euh, ci li ci li ci des it mooy mbiru koom bu nekk xam na ne euh, bu fekkee ay inégalité dafa bari ci réew mi ñii am ñii amuñu li indi mooy ñenn ñi soxore euh, soxor dugg leen wala sentiment yoo xamee ni sentiment yu violent lay doon yooyu yëpp doon na loo xamee ni dañ cee war a am taxawaay ba bu ko laajee même ci mbiru yoon niñ ko mën a tarale ba nga xam ni ku rey nit ñu xool vraiment ba xam ni sanction bu gën a bu tolloog rey ba dana am yooyu moom mënta ñàkk wax ci magal bu Touba yoon bi nag di wéy rek di faat euh, ci euh, kaddu yi nga xamante ne bàyyeeku na ca chef division information ak relation publique bu brigade nationale sapeur pompier lu tollu ci fukki nit ak juróom-ñeent ñoo ñàkk seen bàkkan ñu gis ne nag euh, li ñu def ci ay intervention toll na ci juróomi téeméer ak juróom fukk chef division information ak relation publique ca brigade nationale sapeur pompier ma Dieye ci micro Papa Bala jot nañu def bi ñu yegsee ba fi may wax ak yéen ci dimanche yemook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août 2024 bi juróom-ñaari waxtu jotee si ngoon lu toll si juróomi téeméer ak juróom fukki intervention ñu gis ni ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk yépp ay l'accident la juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom yu ci jëlee lor fukk ak juróom ci ñoom ñàkk seen bakkan ñu def taxaw seetlu gis ni accident yi yokk na loolu diggante démb ak tey lu toll ci juróom benn fukk ak juróomi accident ñi ci jëlee lor tamit yokk na lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom mu nekk situation bu nga xamante ni mi ngi wéy di gën a ñuy ñaaxaat ñëpp ñi nga xamante ni moo xam chauffeur si la wala ñi nga xamante ni dañ ñëwoon màggal si wala gan yi ñibbi ñu gën a ànd ak dal gën a respecté code de la route. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. waa maatam di tiit nag euh, inondation foofu ndax fleuve bu Sénégal moom nag moom moo débordé ëpp euh, fi mu ne nii nag ñëpp jaaxle nañu euh, waa maatam rawatina nag ñi nga xam ñoom ñooy yëngu ci mbirum mbéyum ceeb ndax ndox mi jamono ji mu nga jógee ca fleuve ba di dem ca kër ya ak ci fi nga foofu la ñuy rawatina ca zone Dandé Mayo Euh, Ali Bandel Niang. ñi ko doon ragal noonu la mujjee amee dexub Sénégal gi yegg na ba dépassé côte alertam ci station bu Matam ay fan a ngi nii nag ñu ngi ko doon surveiller waaye fi mu ne plan d'eau bi yegg na ci juróom-ñetti mètre ci biir Matam conséquence bu teew moo di ndexub Sénégal gi day tàmbali kon jóge ci liyam naturel da wutali dande maayo mu di ab njombe buñ ci teelu taxaw nde ndox mi mu ngay dox waaj wutali dëkkuwaay yi nga xamante ni askan wa fa nekk mënatuñoo nelaw rawatina baykatu ceeb yi nga xam ni soobu nañu bu baax a baax ci campagne nawet gi lay seen yu xub wàllu ci làmmiñu du kan mooy njiitalu kuréel gi ngànk béykatu ceeb yu Matam. tiit nañu lool euh, euh, ndaxte xamuñu fu ñu jëm ndeex baa ngi monté surtout ñu nekk ci daane maayo ak ñu dem campagne waxuma la sax tool yi mais dëkk yi ci seen bopp tool yi waxi noppi c'est vrai que ñu bëri demuñu campagne ndax amuñu moto pom mais nag même même euh, ñu dem yi dañu ragal ne ndox mi nangu njaqare la ci ñun en tout cas tiitaange bu rëy la ndax bi nu muy doole bu muy lu ñuy monté xaw nañu jaaxal yéen ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ yàllu musal situation bi ni muy évoluer jamono yi soxal na lool ba jur tiitànge ci askan wi ñi nga xamante ni nag ñoo di kilifa yi fi toogal nguur gi maanaam autorité administrative yi ñoom itam kenn demul ñu des ndene la watuñu ndax situation bi lee donte nag ba léegi plan Orsec bi kenn lancé gu ko waaye li leer ba leer moo di dexub Sénégal gi moom mu ngay daw di wutali dëkkuwaay yi ak toolu ceeb yi mu di ab tiitànge bu mën a jur lu ne ci askanu Dande Mayo bi mu nekkoon Matam pour RFM. message bi bàyyeekoo ca waa ANACIM ñu ne ci euh, guddi gi nag euh, taw mën na bari euh, ci réew mi rawatina nag suba aussi mën nañ nemeeku lu mel noonu altine ak talaata yëpp ci gox yu bari mën nañ fa nemeeku taw yu baree bari Tidiane kamara moom prévisionniste la foofu ca ANACIM lii la wax El Walid Sow. ay taw ci bisub dibeer gi euh, taw yooyu noonu nag jàpp nañ ni mën nañu laa réew mi yëpp donte yaakaar yi ñu am ci boori bët gànnaar sax xaw naa néew muy euh, boori Podor jàpp Saint-Louis foofee dinañ fa nemmeeku asamaan soo xam ni dina muuru ak ay yaakaar yu néew ni mën nañ faa nemmeeku taw waaye nag bu dul loolu moom mën nañu jàpp ni liy des ci réew mi mën saalum dig mi ba sax boori soow gox yu ci mel ni Ndakaaru foofee am nañ fa yaakaar gu gu ni mën nañ faa nemmeeku taw bu ngoon jotee ngoonu dibeer gi euh, jàpp guddi rawatina nag ci guddi gi la nar gën a am doole pour gox yi féete ca soow mi waaye ca penk ba léegi tamit jàpp ni taw yi dinañ ko fa tamit ci ngoon jàpp jàpp jàpp guddi donc euh, bu demee ba ëllëg altine taw yi dinañu féetewoo ci gox yi nekkee ca boori géej gox yu ci mel ni euh, ndakaaru ak ñoom seen jàpp ni foofee dinañu wéy di fa nemmeeku ay taw ci bisub altine gi euh, ak bët saalum tamit waaye boori penk nag foofu la taw yi nar a commencé wàññeeku mën nañu wax ni sax asamaan si xëy na dina muuru waaye yaakaaru taw moom foofu wax dina xaw a néew lool sax bu mën ka fa bu ñu mën nemmeeku laalaata nag mën nañu jàpp ni ci la asamaan di gën a dal ci li ëpp ci réew mi ndax lu dul xëy na boori Kédougou Kolda Tambacounda mën nañu yegg ba Bakel sax xaw a laalaale Kaffrine foofu la ñu yaakaar ay taw ba ca boori Casamance waaye liy des ci réew mi moom ab tekaara lañ nar a gën a nemmeeku asamaan soo xam ne léeg-léeg dinañu am ay niir waaye léeg-léeg tamit jant bi dina fës bu baax a baax rawatina ca boori bët gànnaar ak benn pàcc digg réew mi mbir mi nag métti lool jamono ji ca Gorée ñu ñàkkum ndox ay fan a ngi nii ñu fa dëkk nag loolu da leen sonal lool ñuy wootee ndimbal foofu li ko waral mooy euh, canal yi nga xam ne moom ñooy faral di foofu ndox ma maanaam tuyoo wa day fa am ay yàqu-yàqu euh, yuñ fa nemeeku Jibril Seck conseiller municipal la ci mairie bu Gorée li la wax euh, Idi Sow. depuis quelques fan Gorée dañoo am ñàkkum ndox bu métti ñàkkum ndox mi nag lan moo ko waral mooy ñun ndox bi. ñu ngi jugee dakaar par canalisation sous-marine suñu station de pompage bi ñu ngi féetee ci wàllu corniche ba léegi taw bu mujj bi géej gi dafa yëngu woon yëngu gi mu yëngu nag moo waral tuyaux yi ñuy connecté yàqu ci biir géej gi donc looloo waral ñàkkum ndox bi waaye fu mu toll nii alhamdulilah suñu station bi nga xamante ne mooy Alcatraz mooy réserve bi nga xamante ne moom la ñu am fii Gorée euh, kilifa yi Euh, réparé woon nañ ko ba nga xamante ne mi ngi en marche léegi fu mu toll nii dafa am gaal gi nga xamante ne mooy jóge Dakar moom la ñu tuddee chaland bi moom mooy ñëw ñu connecté tuyau bi di ko feesal donc chaque deux heures de temps trois heures de temps ñu pompe ndox bi muy alimenté dëkk bi yëpp. donc ci information yi ñu mujjee am ci kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sen'Eau waa tout travaux sous-marins technicien yi ñu ngi ci biir ndox bi. di jéem a réparer tuyau bi xam naa ci lu yàggul dara incha allah situation bi dina revenir à la normale. tàmbale ko ci euh, fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre 2024 Air Sénégal nag dina dàqal euh, li nga moom mooy avion yi mu fa doon yóbbu fala ca New York li ko waral mooy entreprise bi nga xamante ne moom mooy Carril euh, Aviation moom nag dafay laaj waa Air Sénégal lu toll ci fukki million ci dollar américain boo koy xayma ci franc CFA muy juróom-benni milliard waa Air Sénégal la koy laaj jamono ji ndax dafa am sax dañ leen yóbbu woon ca yoon waaye justice bu jot na wax waa entreprise boobu ñu fexe rek euh, te euh, avion yi nga xamante ne Air Sénégal moom la moom foofu la yóbbu foofu ca États-Unis ñu fàttali nag dafa nekk ci jamono joo xam ne Air Sénégal fi mu ne nii am na ñu fa yóbbu foofu ca Miami euh, bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi bàyyeekoo ca Africa Intelligence. koy tàmbale ci football ak préliminaire coupe euh, CAF jaraaf bu ndakaaru di dem ci beneen wërngal bi di deuxième tour bi gannaaw victoire bu yaa bu mu am tey ci dimanche bi ñetti bal ci dara digganteem ak East End Cissé bu Sierra Leone ab triplé bu Souleymane Cissé Malick Daaf mooy entraîneur bu vert et blanc yu jaraaf ñu teewlu kook Soda Thiam suñu envoyé spécial ca Thiès. parce que waajal nañu match bi euh, am nañu ñaari rencontre ak équipe bi ñu jël jeune je pense que dem nañu fekki ko ci contexte bu xaw a difficile nag waaye yàlla dimbal nañ bi fa demee ak tout ça géré ko je que match bi yombul woon waaye gagné nañu def def nañu waroon foofu ba gagné 1-0 mais ñibbisee aussi xam naa ne adversaire bi muy ñëw peut moom dafa yaakaar ne xam naa bu ñëwee peut être comme ñoo mëne dañ koy xaar wala dañ koy bàyyi jeu mais ñun

wax naa leen ko te ñu xam ne sama jikko je pense que li am solo mooy dès à présent se focaliser sur le prochain match ñu rectifier xool ci baaxul ñu rectifier bu gomme ko xool lu ñu war a defar ñu defaraat ko et puis comme ni ñu ko waxee léegi léegi ut ay match amicaux pour jéem taxaw nekk dans compétition pour match yi di ñëw incha allah ngeen ñaanal ñu gunge ñu yàlla jàppale ñu incha allah. Ah, entraîneur bu jaraaf Malick Daaf gannaaw kon ndam lu yaay problème yi am tey ci stade Lat Dior bu diwaan bu Thiès entraîneur bu ñu doon lool bu East End Lions FC bu Sierra moom li mu yaakaaroon amut mooy gagné ci diwaan bu Ndakaaru lim ko naroon tàmbale nag mooy fexe ba jaraaf du teel a dugal waaye nag lu mu ci mën a doon ñoom nee nañ am nañ ca expérience bu yaa ngir yeneen échéance africaine yi nga xamee ne kon ñoo ngi leen di xaar peut-être fii ak euh, déwén ñu teewlu Mohamed Lamine Camara entraîneur bu East End FC bu Sierra Leone ak Soda Thiam ba tey causes uh, disappointment. Euh, am naa naqar loolu am naa déception parce que euh, dañu ñàkkoon suñu dëkk amoon yéene gagné fii ci Sénégal ngir qualifié. ñafe nañ ko nag surtout deuxième période bi xeex nañ bu baax a baax waaye jaraaf moo ñu ëppoon doole. ñàkk nañ nag waaye jàngee nañ ci lu baree bari fukki at ak juróom a ngi nii club bi mosul egsi fii expérience bu mag a mag la dinañ jéem a liggéeyaat déwén ngir mën a egsiwaat fii. ci ndorteel match bi nag dañoo joué à quatre défenseurs pour bañ jaraaf marqué but nu mu gën a gaawee malheureusement egsi na ba match bi mu gën a mujjee. système habituel ça a un peu fonctionné en mais ça n'a pas Mohamed Lamine Camara kon ñoom ñoo nar a jiite équipe professionnelle bi ñaari techniciens yi xaatim nañ contrat bu ñaari at Ousmane Diop mooy manager général bu Stade Mbour di ñëwaat ci objectif yi nga xam ne sas nañ ko ñaar nii ñu teewlu kook Ndeye Mati Dieng. ñaari techniciens yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk équipe bi muy El Seck ak euh, Pa Ngay dëgg la ñaari at la ñu signé waaye objectif yi nga xamante ne moom lañ leen fixel euh, dafay concerner pour le moment la première saison di wax na rek li ñu leen sant bokk na ci ñu taxawal équipe boo xamante ne équipe bu baax lay nekk à tout point de vue nga xam ne dina mën a euh, joŋante ci Ligue 1 bi beneen bi aussi su fii ak Ligue bi di jeex daal bëgg nañ équipe bi nekk ci premier tableau bi maanaam comme ces équipes lañ mu nekk euh, entre premier ba huitième donc loolu daal mën nañu wax ne ci li ñu leen dénk loolu la ñu leen sas di ci wax rek ñëpp képp kuy doomu Mbour képp koo xamante ne rek supporter stade de Mbour nga nga jàppale leen ba nga xamante ne mission boobu danañ ko mën a def te atteindre objectif. Ousmane Diop manager général bu stade de a gannaaw ñaari entraîneur yooyu di ma Mamadou Ndiaye ak El Hadj Mansour Manga mooy préparateur physique bu yees bi Sara Ba nekk préparateur des gardiens foofee ca Stade de Mbour football ba tey ci bitim réew ak championnat yi fay am ñu tàmbale ko ci Ligue 1 France deuxième journée bi lañ doon jongante njeexital bi sànq diggante Marseille ak Reims ndam demul ndam dikul deux bi partout Lens door ci bëccëg Brest ñaari bal ci dara ci Angleterre Wolverhampton euh, Chelsea moom moo ko fekki daan ko euh, daan luya 6 à 2 Nicolas Jackson euh, marqué premier but bu blues bi bokk ci festival bi nga xamee ne kon am nañ ko tey ci dimanche bi Liverpool ci beneen jongante daan Brentford ñaari bal ci dara ci Espagne Real de Madrid Valladolid ñetti bal ci dara ki nga xamee ne kon mooy mbappe Euh, dugalagul ba léegi waaye réal dugal na ñetti ball bokk na ci bit yi kenn ki nga xamee ne kon mooy xale bu ndaw ba jóge ca Brésil di Henrique Allemagne la ñuy jeexale euh, tour d'horizon championnat étranger yi ak Wolfsburg euh, bi nga xamee ne kon Bayern de Munich moo ko dem fekki daan ko ñetti bal ci ñaar ci dimanche bi basketball tournoi préliminaire de qualification à la coupe du monde ci jigéen ñi Sénégal Hongrie moo ko daan sànq ci ngoon si ci finale bi score 47 pour Sénégal 63 pour Hongrie. Ndioma euh, bokk ci euh, équipe bu Sénégal marqué tey fukki poñ ak juróom-ñett bokk na sax ci cinq majeur bu tournoi bi waaye nag lépp jeexagul ngir Sénégal ndax am nañu occasion ngir dabuwaat ci afro basket bu ñu nar a amal ci atum deux mille vingt cinq ndax euh, ñeenti demi finaliste bu afro basket boobee mun nañu ba tey qualifié ci mondial bu basket ci jigéen ñi nar am ca Allemagne ci atum deux mille vingt six jeexale ba tey ci wàllum basket ci xale yi góor amagul fukki at ak ñett équipe national du Sénégal di waajal euh, afro basket bi war am ci Afrique du Sud jàpp euh, benn fan ci weeru septembre jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru septembre Sénégal nag bokk ci groupe A bi ci euh, wetu Mali Côte d'Ivoire ak Cameroun gaynde yu ndaw yi nekk jamono ji ci regroupement di ko